dañoo wax ne loolu dafa wéy ab diir seytaane dugal ci seen xel ni leen seen maam yi fi sampoon xërëm yi kat bañ leen fii samp dañu leen daan jaamu doxale leen seen diggante ak yàlla leen ñaan di leen rayal ay gàtt di def xeeti jaamu yépp jëmale ko ci xërëm yooyu kon la ko sabab dëgg dëgg dëgg ak la moo tax yonente bi mu waxee ñoom noonu ñu ne ko xam nañ yàlla ka fay waaye dañu leen di jaamu ngir ñu jege ñal nu yàlla loolu mooy li alquran wax ni maa naabuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi zulfa jaamuwuñu leen lu dul ngir ñu jegeñal nu yàlla yonente bi leerale leen ni leen loolu mooy jëmmi ak bokkaale gi yàlla dul nangu yàlla nangulu ko kenn yedd leen ci loolu yi ñu nekk ñu daal di dëppoo ñoom ñëpp nag ci juyoo ak yonente bi daldi di nag di ko reetaan ak di ko sabote loolu moom la alquran nett li ni waa ajibu an jaahum munzirum minhum wa qaala alkafiruna hada saaxirun kazab nee na yéemu nañ ci aji xupp ju leen dikkal bàyyi ko ci ñoom ña ko wedd ñëpp dañ ni kii ab njabarkat la te ab fenkat la ajaala al alihata ilahan waxidan inna hada la sheyun ujab ñu ne yàlla yëpp mu bokkoo def mu doon benn yàlla képp loolu yéeme na loolu dafa yéemu ci ñoom ndax dañu daal yàlla yi fi nekk nga bëgg koo dajal lépp ni benn am daal loolu mënta nekk ci seen xel dal xel nangu ko alxuraan ne na ko wa idaa raawka in yattaxiduunaka illa huzuan buñ la gisee duñ la jàppee lenn lu dul ay reetaan a hada alladi baasa allahu rasulan ndax naan xanaa du kii de yàlla yónni in kaada la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alayha daan ne tuuti mu mu réeral nu bañ bàyyi suñu yàlla le buñ amutoon ak njàmbaare buñ amutoon ak góorgóorlu ba muñ ci kaw yàlla yooyu tuuti xaw na noo sànk ba bàyyi loonu fekk ne xamuñ ni loola du ak sànk waaye ak gindi la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 nit jël na ko xëpp ko yonente bi sallallahu alayhi wa waaye nag yàlla ni ko fa zakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kaahinin wala majnun yow daal fàttaleel rek yàlla defal na na xéewal ba doo am njabarkat doo ab def jàppal loolu nee na Isaa ci alquran la ñuy jëmale seenu weddi ak seenu mbañal ak seeni ŋaañ di wax ni du dara lu dul caaxaan yi léebi yi nga xam ne ñu jëkk ñu ñoo ko fi bindoon rek teg ko fi waaye dara wéru ci loolu la alquran nett li ni wa qaala alladina kafaru in hada illa ifkun iftaraahu wa aanahu alayhi qawmun ñu ne du dara aw duur la waxane moo ko sos ñeneen ñëw jàppale ko ci rek li muy wax du dara faqad jaau zulman wa zuuran yàlla ni indi nañ ak tooñ nañu te indi nañ ay neen وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأسلة ñu ne du dara léebi ña fi jiitu woon rek da koo bind guddi ko jot day dem ñu di ko ko digte rek mu di ko bind ñëw di ko di ko fi tari waaye li muy wax du dara maanaam woyefal googu àgg nañ ci ak alquran bokk na ci jànkonte bi ñu doon jànkonteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taral guñ taral ci sàkku ay mujisaat ni alquran waxee ni dañ ko ni wa qaalu lan nuumina laka xatta tufajjira lana min al ard yambuwa duñ la gëm mukk te du dang noo ballalal ci suuf si ak mbel mbel guy génne ndox mu neex aw takuna laka jannatum min naxiilin wa inabin fa tufajjira al anhaara xilalaha tafjira balañ laa mën a gëm dañoo gis nga am ay tool yoo xam ne yaa ko kere tool yi tendrement tool yi raisin nga def ca ay dex ca biir nga xam ne yaa koy balal ñu gis muy dox léegi boobaa li nga wax danañ gëm ne yàlla la yoon aw tusqita samaa kama zaamta aleyna kisafan wala li ngay woote ne mën nga noo andil ay dogeeti mbugal yu jóge ci kaw asamaan si wàcceel asamaan si mu daal ci suñu kaw bu fekkee li ngay woote dëgg la aw tatiya billahi wal malaikati xabira ba lañ laa mën gam boo andi woon yàlla mi ngay wax andi malaayika yi ñu ñu warlu la ñu jaakaarloo ñoom ñu di ko gis bu boobaa danañ xam li ngay wax dëgg la waaye nag ba lañ laa mën a gëm da def benn ci aw yakunu laka baytum min zuxrufin wala boog nga am néegu or nga xam da ngay wut or ñu tabaxal la ci am néeg boo nee yàlla ma yónni ko dañ xam ne wax dëgg la aw tarqa fi samaay ñu gis la nga yéeg ci kaw asamaan si te nag sax wala nuumina li ruqiyika xata tunazila alayna kitaaban naqra'uhu ne ko même boo yéegoon ci kaw asamaan si ñu seen nii ngay dem sax lu tax ñu gëm ne yéeg nga tad dang noo wàcceel ab téere boo xam danga ko wàccee waale ci kaw andi ko ñu di ko jàng di ko gis waaye bu dul loolu dañuy jàpp ne dangaa gëlëmal suñuy bët dëgg yàlla ñu ko xul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasulan yàlla moo ko tontu ne ko neel subhaana rabbi ndax dara laa lu dul mbindeef ni yéen muñ yónni ñoom kon ñoom seen lii ñu bëgg a jàpp ku ko jàpp ci ab yonente doo gëm benn yonente ndax dafa mel dañoo bëgg am yàlla mu taxaw léegi léegi ñu doon jàpp ni kii ab yonente la te ab yonente du dara lu dul ak nit ku yàlla yónni yàlla li mu wax yonente bi nga xam ni mooy euh, moo dox diggante bi ak nit ñi ci ak woote mooy qul innama ana basharun mislukum nee leen nit laa ni yéen ana lu ma wote wuteeg yéen yuuxaa ilayya dañ may wax yu ni annama ilahukum ilahun wahid dañ maa wax yu rek ni naa leen xamal ni seen yàlla seen borom kenn la lii daal laa wuteeg nit laa ni yéen dañ ma wax yu ma war leen a wax ni seen borom kenn la lii bokk na ci lenn ci li yonente bi daan jànkonteel waaye lépp nag mu sax dëgër ànd ko muñ di woote jëm ci yàlla seen pas-pas yëpp mu di ko manquil di leen wax leen pas yu manqué ngeen yor ngir liñ daan jàmm ay xiram yoo xam ne amul njariñ amul lor mu sukkandiku rek nag moom ci li yàlla li ko yàlla wax ni leen in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan ni leen lii day lu dara lu dul ay tur yoo xam ne yéen a ko tudd yéen ak seen i baay yéen a ko sos waaye yàlla indilu ko wenn lay maanaam jaamu xëram daal amul benn dalil yéen a ko kere rek wa ida qila lahum ittabiu ma anzala allahu qaalu bal nattabiu ma alfayna alayhi abaana mu ni saa bu ñu leen waxee leen topp leen li yàlla wàccee ñu ne noonu day lan fekkoon suñuy baay di ko jaam moom la ñuy topp yàlla ne awlaw kaana abaa'uhum laa yaqiluuna shay'an wa laa yahtadun ndax seeni baay seeni baay de xamuñu woon dara te gindiku wuñu woon buñ ko toppee rek ci réer lañ jëm de yàlla ni yonente bi am tahsibu anna aktharahum yasma'uuna aw yaqiluun in hum illa kal an'aami ne ko ndax da ngaa ni lu ëpp ci ñoom danañ dégg mbaa ñu am mbaa ñuy xellu ni leen du ñoo ki baaxi ma ñooyam bal hum adallu ñoo leen yées sax bal hum adallu sabila ñoo sax baaxi léegi bi mu jaaree ko ñoom foofu yi ci ay werante ak i mujaadala léegi la ca toppaat mooy xupp nag ñu di ko xupp xupp yonent bi yonent bi mu continuer di ëyibal seen yàlla yooyu di mànkil seen xel yooyu mbooloo mu bokk ci kilifay Quraysh dañu ñëw ci baayam Abu Talib daal ni ko nag yow Abu Talib na xam ne sa doom yi rakk jii day muy tawfeex ju kenn xamul fu yam